La vaccination, vraiment, on a plus de 60 ans, donc on est de la troisième âge. Donc, euh, la vaccination, c'est bon Donc, vous voyez, je suis un masque. Ça veut dire que nous avons la Bon, la vaccination, est très a beaucoup est efficace, efficace. Dans tous les cas, l'avenir nous édifie. L'avenir, nous avons la Bon, il y a des gens qui ont des barres, il y a des gens qui ont des dëgg-dëgg nag am na ay réserve yi ñu ciy wax naan ñàkk yi dafa def nii dafa def naa mais yooyu yëpp amuñ ci ay preuve daal pour mën a wax nii ñàkk yi baax na wala baaxul mais li ma la ko waxee léegi rek laa l'avenir va nous édifier. no présentement non nii nii présentement pare moo pour vacciner parce que vraiment xam nga mag buy dugg daa war a dugg ci lu xam mais doo ni nit ñi ñi ngi vacciné rek yow tam nga dem vacciné wu dama war a dugg ci lu ma xam bu ma demee ba càmbar ko daal ba sama xel may ma may ma mu doy ma. danaa vacciné wu sama waa kër dañ vacciné wu population bi ñoom man li ma leen wax rek li ma concerné mooy man sama responsabilité laa mën a jël ci loolu ak sama waa kër population bi ñoom it ah, ku ci nekk na jël responsabilité am su la doyee nga dem vacciné bu la doyul nga xaar ba mu doy la nga dem vacciné mu ngi noonu jamono ji instant yi xam nga mooy loolu noonu ak rumeur yi ñuy dégg ak yooyu noonu xam nga fekkee day aare macha allah baax na nit ñi bëgg nañ ko fekkee ndax rumeur yi ñu si dégg nax moo tax nit ñi tiit instant yi moom képp kuy sénégalais tiit nga ndax rumeur yi ngay dégg si vaccin yi loolu la mais bu fekkee luy aare la tamit moo gën daal waaye instant yi daal rumeur yi nit ñi di dégg moo tax xam nga kenn ñemewul instant yi. mais bon mun ma ne ànduma ci ndax parce que man doog nekkuma Sénégal quoi yaa mais daal ba ñëwee Sénégal daal képp ku xam ne pare nga pour xam ne vacciné wu quoi maa nga vacciné wu mais man personnellement pare gu ma pour vacciné wu quoi. moom moom sax ngay xool midi à 14h daal. ku dal xelam tu mën nga dem voilà nga pikiru bu dalu sa xel tu restes chez toi point c'est tout parce que ku ne ngi nan no fi la joge lañ ko en personne je parle avec vous je suis pas encore prête ah, nañu xool rek bu amul effet secondaire après vacciné parce que affaire bi un problème waaw vaccin yi nii la jógee noonu lii lañ ko défaré ki génne na vaccin am kii génne na vaccin am moo tax daal ndax xam nga kañ lay dal sama xélam ko xamante ñoo dëkk dem vacciné wu ñëw ñu tok durée gisuma sé rien du tout la mëna dem vacciné wu leen rek dé nañ tax dalal seen xel donc voilà voilà ku ne mom xol rek luy choix mu def buñu forcer kenn tamit aussi parce que chacun est libre de son choix aussi c'est ça. vaccination bu dé dañuy vacciner pour euh, ngir aral ci jàngoro bi. Euh, kon euh, je suis pour euh, ñu ñu vacciner ñu jël vaccin bi quoi dam mm, parce que vaccin bi moñu moñu moñu aral ci ci ci bi kay kan waa Covid mom je suis pour man de paré na quoi comme que sama sama nu mu tudd ñu jiite rew mi mom jël nañ vaccin bi kay man lan lay xaar pour jël vaccin bi nak dam koy jël dam koy jël conséquences yi nek si ginaaw vaccin bi mom ah den ñom dinañ assumer quoi mais vaccin moom ñoom ñoo ñu ne ñuy vacciné dañuy vacciné damay vacciné. boobu euh, suñu médecin yi ñoo xamante ne ñoo ñoo chargé suñu santé bi euh, ñoo ñu mun a euh, garantir foofu quoi parce que quant à côté boobu moom ñun mënuñ mënuñ dégte ban mooy vaccin ban moo gën a baax ban moo gën a bon te ñun ñoom dañu ne vaccin bu ñu andi loolu la ñuy jël te ñun tamit loolu la ñuy jël. kon ñun amuñ lu ñuy ragal fofu suñu médecin rek ñoo ñu aral a kote ci côté bobu non man de man limay garantir peuple bi moy comme ko man décision ma jël dama bëgg peuple ko xamantene da nga euh, da nga am kula jital ci réew mi euh, dafa euh, dafa dafa wax lo xamantene mom dina ko def kon ñun tamit amuñ leneen lu ñuy ragal ci lu côté bobu man de man de bu dé dama am ay njaboot ñëpp ay vacciné ñëpp ay vacciner ñëpp ay vacciné parce que sama njiita réew mi ñom vacciner nañ ba pare man tamé damay jël vaccin bi man loolu laa ñaan peuple ba nañ jël vaccin bi bu fekkee loolu mooy suñu avantage bi pour ñu mun a dund dans euh, la liberté parce que instant yi kenn libre ñu ngi ci ay max yi ak yeneen ak yeneen kon bu fekkee eh, ja vaccin bi moo moo ñu aaral ci côté boobu moo ñu moo ñu mettre euh, en liberté noonu nañ jël vaccin bi kon. waaw loolu moom pour man li ma ciy wax tamit bariwul daal parce que loolu tamit lu baax la daal parce que loo xamante ni bu dikkee dafa dal ci kaw nit ñi. ñuy seet loo xamante ni mën na ko saafara pour man loolu dafa nekk lu baax parce que ku si nekk rek war nga ñàkk ndax ku si nekk rek pour ñu aar la moo indi ñàkk yi parce que bi sonal na nit ñi sonal koo xamante ne xamul dañuy rek bu ñu gisee nag loo xamante ni mën na ko faj dañ koy daal di rek jël utiliser ko te bu sama sago ñun ñëpp ñàkku daal xëy na yàlla musal ñu si ba yàlla jaare fa dàq feebar bi ñun ñëpp ñu nekkaat si jàmm delluwaat ci suñuy activité ndax fi nekk nii ku si nekk sa liggéey gaare na ndax feebar bi boo liggéeyee tey suba doo liggéey baa yaa ngi ci lii yaa ngi ci lee man de loolu mooy sama xalaat di ñaan yàlla rek yàlla jële fi feebar bi rek mu dàqal ñu ko musal ñu ci musiba ak saytaane ak balaa ñu yokk ba yëg ko def ci Sénégal jamm di ñaanal borom réew mi yàlla defal mu ko jamm man pare samay waa kër tamit pare nañ parce que man moom loo xamante ni bu ñëwee moom dala yóbbu yàlla rek a xam dala yóbbu te lii buñ la ko defalee day tax boo naroon am do am boo amon tamit day tax nga wér pour man pare naa pour ñàkku man pare naa pour ñàkku pare samay waa kër pare na pour ñàkku ma xam tamit te nga déggal ma dina la wax nga dem ñakku ji oh, lima li leen di ñaax parce que ñoom xeyna xamuñu man xawma keneen tamit xeyna xamuñu xamna dañ ko dégg te xamuñu nan la démé xeyna lolu loolu moo tax ñoom ñuy wax ni man duma def li duma def li duma ñakku duma ñakku ni ak ni xam nga ñun sénégalais dañoo xawa doy waar loolu mooy suñu problème mais man lima leen di ñaaxe mooy ku si mën dem ñakku ji na nga dem ñakku ji ndax lii ba lii euh, ba corona amul waxuñu kenn mu dem vacciné wu ci neen rek pour man daal ku ci yàlla jàppale rek nga mën a dem demal boo demul tamit ëllëg lu la ci fekk yow la pour man noonu laa ko gisee di leen ñaax nag ku mën a dem mu dem daal waaw nañu dem ñàkku ji nañu dem ñàkku ji ndax loolu yëpp suñu jàmm la jàmmi réew mi la